asalaamaaleykum man maa ngi tudd madame Samba Fatou Diouf ñu xame ma si turu Mathiou ma dëkk jaxaw euh, Thiès euh, am lu ma metti trop moo tax ma woo waa Thiès info li ma metti mooy structure sanitaire yu Thiès yi léegi da ngay feebar doo xam fooy fajoo dem naa hôpital régional mois de février dem rang ñu orienté ma chirurgie ma dem déjà dama teel dem sept fekk na ma fa fa laa toog laaj vigile bi mënu ma toogal rek ñu orienté ma chirurgie toog naa ba 10 heures ma ne ko xanaa danga ma fàtte mënu ma duggal orienté ma secrétariat ñëw fekk fa ñaar ñaari daam kenn ki na ma meer loo jot man ko man daal nelawuma guddi sama loxo bi bout de papier bii la ma jox ma liir mu jox ma rendez-vous 9 4 2019 te ne danga ñëw 6 heures du matin 6 euh, heures du matin si la fekkule li ñuy jël dañ koy jël man ko mais madame nit ku feebar ñëw mois de février ba avril ñaati weer la ah, nga ma jox rendez-vous mais chirurgie daan am benn médecin bu fi nekk soo ñëwee mu xool bindal la ordonnance ah jox la rendez-vous ah mu ne ma ah moo bari man ko merci. génn métit ba jël taxi dem kooku xam nga kooku am na métit dama obligé génn dem structure privée ñu bindal ma ordonnance ma dem di faju tey nag moom li ma metti mooy IPRES xëy suba teel dem fa ñëw fekk visite bi tëj bunt bi ma ne ko alal la mu ma docteur bi nee na courant amul ma ne ko kii dafa yabaate moom matériel bi muy euh, utiliser ah ça ne prend pas de l'électricité ana infirmière bi mu ne ma même chose ah ma gis ay mères yu yoo xam ne ay paa yu màggat yoo xam ne ñu ñu ñibbiwaat mais il est payé pour travailler ah, ma laajte euh, direction ba ñu ne ma si moo fi nekk mooy chef ma dem fa ah moo ko ko ah, mais man dama jaaxal les gens ne travaillent plus. léegi yow bu ñëwee IPRES euh, maanaam mbooloo bu fa nekkoon dam xaar mbooloo bu bëri la wala. du ñëw tëj buntu ba ku ñëw da ngay dem doo dugg sax. bi ñu tëj bunt bi vigile vigile vigile moo lay orienté nee na bi nee courant amul. courant amul liggéey. waaw dañu fu ko wekk courant su amulee nubbi palanteeram ah wala moom climatisation ba mu nekk bi moom moo ko intéressé na asi tàngaay bi ah mais ñun taluñu climatisation duñu tal kii euh, faju ah mais les gens ne travaillent pas te docteur boobu liggéeyul de da ngay dem yenn saa yi 9h ñu dem ñu la nee na euh, arrêté na 20 personnes la jël. xale bu ndaw ah ay mag yu yoo xam ne xëy suba teel ah, dem dem dem mu leen di kalaw kalawee loolu rafet na mais xam naa ne daal gouverneur war na jokk wax si wax ji waaw hôpital régional aussi noonu la suñu benn voisin am na fi malaise ñëpp ko guddi amul benn docteur bu ko xool dañoo obligé orienté ko Saint-Jean mu mujj décédé mais c'est du n'importe quoi dans ce pays institut sanitaire moom léegi ko amul ko amul xaalis doo faju ah te te am amu amuñu moyen ah. naam yow soo ñëwee pour faju ñoom faju ñu la mais dinañu orienté dinañu am fenn ko ñu wax nga dem wala. fu lay orienté. ñoom dañoo wax dara. duñ la wax dara. dañuy ñëw rek ñu ne la faju ñu faju waaw mais fu mu ko wekk te ñu koy fay il est par mois ah tey la 31 juillet. wala ñoom daa am lenn lu ñu laaj loolu la ñu ko amul ay kayit wala ay facture wala yëpp nga leen di laaj Euh, si au niveau fan. au niveau de l'hôpital euh, régional wala au niveau de l'IPRES. IPRES moom sa sa carte euh, retraité ngay ngay joxe kese moom nga joxe waaw mais xale bu ndaw nekk fa di kàlla kàlla ay mag loolu c'est pas normal làqatuma jaxaw laa dëkk maa ngi fii dëkk jaxaw tudd ñëpp te xamee ma si tuumaaju waaw li may wax c'est clair et net. bi cas yi bu mu dal ñaata kii bu mu dal arrivé ñaata période la def. non tey la tey. tey jii la waaw tey. ban heure nga euh, si suba si euh, huit heures. huit heures waaw man man euh, vigile bi du ma fi mën naa toog ba courant ñëw mu ne ah non moom nee daal courant amul du du du visite fu mu ko wekk. léegi dañoo bi. waaw moom bi kay moo tëj bunt bi mu ne ma actuellement kenn new fi. su bunt balaa taxaw ma ne ko du ma fi jógee fi laay taxaw mu ne ma ah en tout cas moom mi ngi si biir ma ne ko na génn ma wax ak moom ndax li mu def c'est pas normal. dama obligé dem sa direction ba laajte kama fi chef ñu ne ma si mu wax ko ko ma ne lu li muy def c'est pas normal ah mais raftu ay magum jëm may jog ah loolu fu ko wekk mais léegi actuellement ko amul xaalis doo faju si dëkk bi ah mais mais c'est pas normal ah hôpital national toog ñu fi ay temps yoo xam ne liggéey ñu ah nit ñi di xaaw a dee di dem mais fuñ ko wekk mais gouverneur na wax autorité yi nañu wax. ah ndax ñoom am nañu les les moyens pour faju dans les cliniques mais ñi ko amul nag lu ñuy def non vraiment les gens sont fatigués te lii nag fokk ñu jóg si nag te IPRES ah retraités yi amuñu dara waaw dañuy fin mois di jot ngay am ay vingt mille francs yi ay dix-sept mille francs yi ah su suñu feebaree dañ leen war a faj waaw te ñoom ñi si nekk si kaw il brasse des milliards la la di fay kon nag war nañoo mën a faj ñi nekk si suuf. man daal loolu moo ma métti woon. léegi ba nga gisee le certain si daal le docteur si moom lan la la wax. ah dafa ne ah am na ku fi jógee léegi ah man loo mën a def rek euh, tu vas écrire ma euh, ma envoyé par la voie hiérarchique j'ai wax c'est pas normal IPRES liggéeyuñu IPRES Thiès liggéeyuñu loolu moo ma metti léegi yow yan message ngay lancé ah mais autorité yi ñoom ñu jóg si ñoom bu ñu toog rek par exemple ñoom am nañu les moyens pour aller dans les cliniques ah mais ñi nekk si suuf nga xam ne amuñu euh, les moyens pour kii pour pour fay même euh, soo demee normalement garab yi ça doit être gratuit ah yenn saa yi nga fay gis garab yi mais ordonnance lañu lay bindal nga dem jënd ji ko ah même nag tey médecin bi soo ko waxee defal moo def analyse mu ne c'est pas la peine man ni moom moom moom moo xam euh, yow li li ngay métti lan la ah mais su di n'importe quoi fokk nag nit ñi wax si te man moo tax ma woo leen waaw message bi jàll liggéeyuñu. liggéeyuñu waaw. que leneen compté a kii. kii. man ma ma euh, saisir euh, kii euh, retraité Thiès yi ma saisir leen ah xaw ma kan mooy président bi mais dinaa ko gis aussi waaw ndax il paraît am na président des retraités de Thiès seeti ko ñu wax si wa liggéeyuñu waaw liggéeyuñu moom. liggéey ñu si ban anam maanaam dañu fekk nit ñi wala dañu ñëw la ñuy def. du ñu ñëw lan li choisir vingt personnes par jour mais nit ku feebaree ñëw liggéey kii ko ah am na heure liggéey boo xam ne suba si man ba may liggéey waat naa ko si yàlla ne xoolal aw ma heure de pause damay liggéey ba sama liggéey jeex ma ma door a wàcc ah même hôpital da ngay dem si ñun dañoo nekk pause mais pause si hôpital mais c'est jamais vu. non affaire bi man man jaaxal na ma de c'est du n'importe quoi dans ce pays les gens ne travaillent pas ah ils sont payés pour travailler li leen di euh, fay euh, ne leen jikk ah mais mais mais ah je ne suis pas contente du tout. maanaam yéen soo leen demee si structure publique yi ñoom duñu liggéey wala médecin yi ñu am yenn affaire yu leen daal léegi ñoom dañu ñu orienté yóbbu leen si structure privée yi yéen soo demee si structure privée les mêmes médecins ngay man euh, je ne sais pas man euh, loolu mosuma kii daal man daal su ma xamee ne am naa problème ma dem structure euh, privée fay ñu consulter ma waaw am na structure privée yoo xam da ngay dem soo fayee ñu consulter la ah mais su fekkee su fekkee ne par exemple amoo xaalis nooy def ah. mënoo mënoo tout le temps par exemple structure privée nga fay consultation 10 000 francs ordonnance signé war a nekk ay 50 000 ak 60 000 francs xaalis la. mais médecin et presse moom liggéeyul loolu moom maa ko wax moom xaw ma xaw ma ko mais liggéeyul. ah mais état bi na si jokk ku koo xam ne il est compétent kii xamul ku feebar na su xamoon ku feebar du du tëj euh, vigile duñ tëj bunt bi ah, ñëw ni leen courant amul courant lu mu ci def liggéeyam ah kon moom kilimatisation bi moo ko intéressé ah non c'est non c'est li rafetul rafetul. rafetul.